jaajëf salaam jàmm ku mbedd nigas baa ngi nuyoo léemaa ko mëj wóolu waa dégg ko fay mooy chef booy ji ji ji di der akay booy grand yof akay messi akay takke akay mëne fu nekk akay macha allah boobu sama jigéen Khadija moo ma ko jox Khadija di la bëgg bu baax a baax yéen a ngi seen émission Galsen Sama Game sur Equivox TV tey ñu dalal fii waa lu dul rap Galsen bëgguñu ñu def benn compilation bu nice di waajal seen événement le 4 janvier incha allah Euh, avant ñuy dugg ci événement bi dañuy njëkkee ci compilation bi naka la ñëwee euh, naka la ko gars yi xalaatee ñaata at de diire yooyu yëpp nday mbili ji mi ngi nii toog isapt ci kanam tuuti moom it possible dina dugg ak moom ci wàllu programme bi naka lay demee ak fan lay amee ak ku bëgg bagage yooyu noo def ba am ko mais avant ñu yegg ci loolu dañuy jox isapt mu nuyoo après ñu dugg ci waxtaan bi isapt Equivox TV ñu ngi lay nuyu téléspectateurs yi waa lu du rab gaal seen bëgguñu laa dalal yee salaamaaleykum maa ngi tudd Isapt from uh, lu du rab gaal seen bëgguñu maa ngi nuyu gars yi suivre Equivox TV yëpp di bëggee abonné yëpp euh, voilà Isapt la tey maa ngi fii euh, ak euh, possible après moom tam dina ñëw ñu war a wax ci événement compilation lu du rap Galsen bëgguñu voilà jaajëf Izepte ñu ngi lay bëgg waat bu baax a baax di bëgg pos mais Izepte avant ñuy sori ci événement bi dañuy dugg ci compilation bi naka la dikkee ba ngeen dajale plus de trente artistes wala quarante jàpp soixante yomboon na yombul fan la xalaat bi jógee turu groupe bi lu dul rab gaal seen bëgguñu loolu yëpp bëgg nañ nga defal ñu ci détail ñëw ci après ñu dugg ci biir waxtaan bi. yeah ok en fait euh, su ñuy wax ci compilation bi fan la jógee bon xam naa dañuy tënk rek quoi parce que compilation du Drop Galsen bëgguñu fu mu li ko li tax mu ñëw dafa dafa bëri quoi maanaam benn ñu teg compilation bi ay soldaaru hip hop lañ ay melomaan lañ bon yow li may wax ni sax xam nga ko peut-être da ngay laaj ni pour laaj rek quoi mais xam nga lépp nu mu nu mu nu mu sosoo quoi. voilà léegi kii di melomaan euh, da ngay wax euh, jënd album jënd tike xam nga. Euh, di dem si concert et tout léegi ñun dañoo toog à un moment donné ñu ne lii nii doyul parce que ñun foog ñu apporter suñu pierre à l'édifice quoi parce que jënd ticket euh, jënd album loolu kese doyul quoi ñu yem ci consommer mais dañu ñëw pour marquer suñu époque quoi pour euh, contribuer parce que dañuy gis ne animateurs yi yor nañ seen événement bopp DJ yi yor nañ seen événement bopp manager yi yor nañ seen événement bopp rappeurs yor seen événement bopp ñu ne pourquoi pas tam ñi nga xam ne dañuy consommer muy melomaan yi ñoom tamit ñu yor événement boo xam ne lii ñoom la tamit quoi parce que loolu noonu hip hop Galsen moo siy gagné rek quoi déjà loolu bokk na ci cause yi tax ñu teg compilation bi ma léegi nag contexte bi nga xam ne moom la compilation bi juddoo mooy euh, Obi médecin dañ ko joxoon fii benn trophée ci Galsen hip hop si te Obi mu moo mu nekk koo xam ne membre fondateur lu du rap Galsen bëgguñu la ku wax Obi sa xel day dem ci lu rab Galsen bëgguñu voilà léegi ñu ne ñun foog ñu def benn affaire pour Obi quoi parce que yàgg nañ ko mbébét amuñu les moyen quoi ñu ne léegi dañuy def euh, benn concert pour dédier ko Obi mm-hmm. ñu dem ba si biir concert bi metti ñu ne non est que duñu def leneen loo xam ne sax bokkul ak concert quoi la moo tax ñuy ñëw di def toujours la même chose ñu def benn affaire bu rare après si la ñu amee idée def compilation léegi ba ñu amee idée def compilation boobu noonu euh, amoon na benn euh, producteur bu taxawoon produire comme pil bi parce que tamit lu rab gaaseen bugguñu yàlla daf ko dimbali dafa am benn euh, aspect relationnel boo xam ne dafa important maanaam nit ñi dañ ko dañ ko fil quoi dañ ko like am benn gain bu taxaw pour produire compil boobu noonu après bon si lañ jël nag plus de quatre-vingts MC mm-hmm. au début quoi ñu dem ba si biir euh, ñu am problème ak euh, producteur boobu noonu mujjee retiré wu bon moom moo xam la moo tax mu retiré mais ñun ba léegi xamuñu quoi mm-hmm. après bon si la ñu attaqué plan B bi parce que instant boobu wéet nañ si job bi parce que yow xam nga lu rab gaan seen bëgguñu nu muy demee amuñu moyen mooy loolu ay cotisation lañu yaakaar après ñu ne léegi nañu éliminer vol vol 2 bi comme dañ prévoir vol 1 ak vol 2 ñu ne léegi dañuy éliminer vol 2 bi si lañ dindi vol 2 bi mettre leen en attente après ñu maintenir ñi nekk ci vol 1 bi ñooñu la ñu continuer di job si projet bi affaire bi di dem di jël forme écho yi di gën a dem euh, studio yi tamit koo ko tegal mu ne la non lii dama siy jàpp mhm. ñu joobak si ak treize studio treize bit maker mhm. koo wax projet bi mu ne la non lu du rab gaa seen bëgguñu comme ñoom ay soldats hip hop lañ yàgg nañ ñu demal mhm. ñun tamit foog ñu def dara pour yéen quoi lii nii dañ koy def duñ leen ci fayeeku dërëm donte nag am na ñoo xam ne nag dañuy fayeeku seen liggéey la tamit munuñ ci dara euh, dinañ yëkkati dara jox la tamit amul blème quoi parce que tamit day am loo xam ne ñun ñoo koy soxla tamit quoi côté rappeurs yi ñu dajale woon plus de quatre vingt rappeurs mu nekkoon tamit euh, lu bëri après ñu wàññi loolu mais tamit au au fil du temps li ñuy gën a dem day am rappeurs yoo xam ne tamit dañuy génn compil bi parce que tamit euh, ñun euh, sama gars yi dañoo xaw a naqari deret nag quoi benn instant am na ñoo xam ne bon xam nga ñu ko man ko man moom dama dama neex deret quoi ma booy possible yooyu noonu nga xam ne ñoom dañuy tàngal rek mm-hmm. voilà léegi am rappeurs yoo xam ne déggoowuñu ak ñoom si kàddu quoi. ñu dem ba si biir ñu écarté ñooñu noonu ñu continuer ak ñi nga xam ne déggoo nañu ak ñoom voilà ci tënk daal euh, loolu daal mooy compilation bi quoi bëri na nag bëri na bëri na bëri na loo xam ne war naa ko mën a wax waaye tënk la résumé la quoi. am na solo euh, Isapt ni nga ko résumé am na solo yaakaar naa leeral nga lépp mais dafa dem ba ci biir am artistes yoo xamante ni euh, dañ ci bokkoon dem ba ci biir bokkatuñ ci. lan mooy problème bi artistes yi dañ leen di proposer pour ngeen fay leen wala yéen booy da ngeen ñëw rek pour wax artistes yi eh, nañ ñëw prise gratuite defar leen seen compil gratuite yéen ak artistes yi link bi naka la demee da leen fay xaalis wala da ngeen waxtaan ak ñoom moralement pour ñu ñëw. waaw bon artistes yi amul kenn koo xam ne dañoo yëkkati dërëm fay la pour nga ñëw poser ci compilation lu Dorob Diassène bëgguñu encore une fois tamit dama koy wax mu leer quoi. Mm-hmm. Euh, lu du rap Galsen bëgguñu du ñuy producteur du ñuy promoteur yow xam nga nu mu demee quoi raison pour la laquelle jéemu ñu fay benn artiste pour mu ñëw poser si bon am na artistes yak yoo xam ne dañu taxawoon ñu ne ñoom euh, foog ñu fay leen pour ñu poser quoi ñu ne leen non ñun mënuñu fay ñi bàyyi ñële si lañuy ñuy libéré yooyu noonu ñu dem quoi am na ñoo xam ne loolu moo tax mujj ñu bokk ci compilation bi quoi. Euh, am na tamit ñeneen ñoo xam ne xam nga compilation bi ji li ñun ñoo géré woon direction artistique compilation bi quoi ñun ñoo doon xool biti ñoo envoyé ko gars yi bu fekkee filuñu ko ñu dem indiwaat bit bi yoo xam ne fil nañ ko lyrics si aussi thème bi wala bokk euh, ego trip wala whatever maanaam euh, arrangement son bi loolu si ñun la dépendroon tamit quoi ñun ñoo doon géré loon noonu léegi nag malheureusement dafa am yoo xam ne nag Euh, mënuñu déggal euh, koo xam ne ku dul seen manager wala benn melamaan wala whatever ñu dem ba si biir am na sa ñaari son yoo xam ne job nañ ko si compil bi son yooyu ñun dañ ko mujjee tëbal euh, ñu joobaat son yi am ñoo xam ne nanguñ joobaat son yi loolu moo tax ñu génn ci compilation bi parce que ñun dañ jàpp son yi nii dese na toog parce que li ñu soxla amul amul ci sound yi nii quoi après bon si lañ mujjee waxal rappeur yooyu noonu am ñoo xam ne dañ ci gis seen bopp ñu mujjee retiré wu ñu ñaanal leen ñu dem ñu jël seen yoon ñun tam ñu jël suñu yoon quoi après noonu la demee quoi. mais exact artiste boobu fayul tamit bu ñëwee teg lu mu teg est-ce yoon la tamit mu teg lu mu xalaat ngeen jël saan boobu ne du génn parce que li mu teg baaxul sa fayoo leen ko est ci droit tamit. waaw c'est que xam nga la mooy la problème tamit mooy jiili produit bi ah. produit lu dul rap Galsen bëgguñu la du produit rappeur boobu noonu de. parce moom carrière am lay léegi. carrière am lay génne mais ñun tam suñu image di ci joué parce que tamit mënuñ jël bàyyi liggéey compilation pendant deux ans deux ans lañ ko job pendant deux liggéey benn affaire nga ñëw déglu benn affaire boo xam ne baaxul yow nga ne da ngay maintenir loolu sa biir compilation parce que loolu loolu sa image moo si yàqu en même temps yaa ngi dimbale rappeurs yi moom moom si boppam moom mi nga xam ne nee na du joobaat sama boobu noonu yow kooku yaa ngi koy dimbali tamit quoi comme ça moom mu mën a defarwaat parce que loolu bu génnee mën na ko yàqal raison pour laquelle ñu ne son boo xam ne ñun déglu nañ ko d'après ñun bokk suñu xam-xam si hip hop donte dafa néew nag quoi tamit bëriwul daal ñu jàpp ne lii nii baaxul ak tamit euh, suñu ingénieur yoo xam ne ñu ngi job si compilation parce que compilation bi bàyyi du ñun kese de dafa am ingénieur yoo xam ne ñoom ñoo doon superviser compil bi ku ci mel ni Pipa Flow ku ci mel ni Keef Jégiraay voilà kon. compil bi du lu du rab gaasen kese ñoo ñëw déglu benn son ñu ne la non son bi baaxul baay da nga koy joobaat non non non dafa am ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu ak ñun li ñu am loolu la ñuy boole léegi nag fay nañ la fayuñu la ñun la moo ñu mooy jiili nga def loo xam ne lu dóob la lu nice la lu tegu ñu mën ko génnee mais bu teguwul moom duñ jël risque di ko après ñuy naam yéen yéen a dàq critiqué fii ba pare ngeen ngeen ñëw def son bu mel nii tamit quoi loolu dañ ko doon daw. su affaire yi naka la ñëwee. nu ngeen boolee benn deep dose exequi la keneen a keneen fin août fin août tur yi ngeen boolee gaay wala nu mu demee noonu parce que loolu yéem nañu bëri soit bi naka la dikkee boole ngeen ay gars yoo xamante ni njuróowul isil ku ci mel ni Karbala ak Bril Fayed foofu waaw bon xam nga dafa am benn affaire euh, muy mélomane dañ ko yàgg rêvé quoi maanaam yenn featuring yi par exemple ma jox la benn exemple rek quoi muy Kalif Pëpësa xam nga loolu demande la woon mhm. loolu son boobu ñëpp dañ ko bon ay melomaan lañ ñu ci tu xam nañu nu muy demee léegi dañoo toog ñu ne par exemple ñu ne mais Dip Killer ak Exa Killer ñaar ñi bu ñu defee sound day nice quoi parce que am nañ benn dénominateur commun boo xam ne bokk nañ ko quoi te la preuve son boobu ba mu génnee bokk na son bi gars yi gën a bëgg ci compil bi mooy wane waane bi Dip Killer Exa Killer voilà pareil ak benn aada cannibal ak benn nit doof parce que da ngay xam ne voilà da ngay xam ne lii ñii gars yi dañ koy yàgg a laaj ñun mm. ba ñu demee gaale ni dof loolu la ñu wax mu ne ñun son bi gars yi bëgg na yàgg nañ ñu ko laaj mm. ñu nekkoon fii di saral comme léegi yéen dem ngeen ba nara a teg lii ñun mënuñu lu dul ñëw def son bi mm-hmm. noonu la quoi maanaam euh, li gars yi doon laaj li doon laaj mm. ñun loolu lañ ñëw jëmal ci biir compilation bi nii quoi loolu kese la. mais compilation bi am na yenn saan yoo xam ni soo koy déglu. dafa am yenn artistes yoo xam ne bi ñuy bind seen texte dafa am ñu ñuy waxal sa boo ko dégloo da ngay xam ne kii diw lay classe ngeen bàyyi mu jàll wala loolu seen yoon nekku si waaw loolu nag jiile wax dëgg yàlla ñun moom eh, loolu toppatoo wuñ ko quoi tamit benn instant xam nga hip dafa am. seen image la tamit si biir compilation lu dul rap Galsen bëgguñu la diw classé diw. waaw suñu dëgg la suñu image la mais loolu noonu yëpp dafa resté si cadre hip hop parce que ñun wax naa lu ñu intéressé son bi na baax am qualité quoi tegu si yoon léegi nag classe bi ngay classe parce que ñun duñ la bindal teg ah. mm, sa yow yaay bind quoi yow ñun bëgguñu dugg si. benn xelu rappeur tamit quoi yow yaay xool li nga fil nga wax waxoo ko tamit benn instant léegi nag am na ñoo xam ne def nañ son sànni pic benn rappeur wala classe ko directement loolu rappeur boobu la concerné quoi ñun loolu wax dëgg yàlla mun ñu si dara donte nag dinañ interpeller rappeur bi fekkee classe bi ñun leer nañ am na ku ma adresse dinañ la woo nee la sa waay la moo tax nga wax lii nii quoi tamit après nga expliquer ñu après tamit on passe loolu mais mais exact est-ce que amul yenn artistes yoo xamante ni période bi ngeen di prise euh, compil bi dañ doon toog naan leen jox leen ma paas bu ngeen ma joxul paas du ma mën a ñëw tey di leen posé affaire yooyu genre jafe-jafe yooyu jànkoon da nga ak ñoom. waaw bon am nañ jafe-jafe yu metti ci compilation bi quoi man moom man personnellement pour dire vrai jafe-jafe yi may jànkoon yi ma jànkoontel woon ci compilation bi am na benn boo xam ne moo ma gën a metti trop trop trop trop trop. te bon du ma du ma ko du ko wax fenn quoi bon du ma ko wax fenn parce que loolu dafa ma métti te ci compilation bi la tamit quoi te loolu noonu lu graaw ko quoi benn instant mooy loolu euh, quant à côté transport bi c'est normal nit joge benn Kër Massar wala wareefa soo ñu nee da nga soxla transport ah mën nañ yëkkat de ñu ne sa waaye ñun lii la ñu am ñu jox la quoi mais du ñu tëb tëb rek ñu ne dañuy joxe transport non non loolu la quoi mais boo ñu laajee. wala ñu xam ne yow mi fi ngay jógee hors side la parce que ñun ñëpp ay nit lañ tamit xam nañ li gars yi di daj mën nañ yëkkat dara ñu ne la sa lii de xeeb nañ ko quoi mais jàpp si pour nga ñëw prise quoi te loolu noonu wax dëgg yàlla rappeurs yi dimbali nañ ñu si côté boobu noonu ba alhamdulilah lool noonu moom géré nañ ko ba def nañu prise yi nu mu waree métti woon na trop nag mais euh, yàlla yàlla mujjee na motal lépp quoi voilà contrainte yi nag du ñaax des fois nga kale benn rappeur mu war a ñëw prise mu am contre contretemps wala studio bi ñëw studio bi am contre contretemps am ñeneen ñoo xam ne dañ leen war a jël yooyu yëpp am na si biir compil bi te tamit day nekk affaire yoo xam ne tamit dañ koy comprendre parce que man euh, je me rappelle ba may des si Pipa euh, ay euh, ay ay deux heures du matin laa doon jógee xam nga man kese quoi di doox mooy loolu te dafa dafa metti woon quoi te te zone boobu yoo xam nga zone boobu zone Padois zone bu ay zone risque la et mooy loolu quoi mais dafa am loo xam ne dañ ko gëmoon mooy lii nii day sotti quoi parce que compilation bi quoi qu'on puisse dire am na ñoo xam ne gëmuñu woon compil bi day génn am na ñoo xam ne fii ay groupe de petits melomaan la ñuy woowee tamit xam nga mais yàlla dogale compil ba mu génnee dafa tëj lamini ñooñu noonu quoi benn instant tamit quoi te incha allah concert baa ngi ñëw te dina tëjaat lamini ñooñu noonu tamit di waxaat quoi. waa léegi exact lu ñu cërale woon ci waxtu daanaka mat na naka ngay tàggatoo waaw bon di wax euh, benn affaire di leen jaajëfal Equivox euh, Equivox TV ci invitation bi xam nga émission bi am na solo trop gis nañ gars yi nu ñu koy suivre tamit euh, di wax gars yi lu du rab Galsen bëgguñu concert bi le 4 janvier incha allah na gars yi ñëw à partir de 18h concert boo xam ne musoo ko gis fenn la parce que dañu ñëw pour révolutionner moo tax concert bi ñëw commencé 18h ku ñëw foofu ay 22h na di nga fekk ñuy ranger ay barrières tamit quoi. wasalaam loolu moom ISAB <laughs> 22 heures rangé ay barrières loolu moom non mooy loolu mais ñu ngi lay bëgg bu baax a baax. léegi dañuy jublu si possible possible la lay ñëw dalal léegi nii mi ngi ni toog ñu fas yéene laaj ko moom ci programme bi naka lay demee le 4 janvier incha allah ginnaaw bu ñu waxtaanee ISAB dugg ci programmation compilation lu rab gaal seen bëgguñu dañuy dugg ci événement bi Khadija léegi léegi. jaajëf Khadija poste mi ngi nii comme ni ma la waxoon sànq moom la ñuy fas yéene waxtaanal ci programme bi naka lay demee ginnaaw bi ñu jugee si ISAPT mu expliqué nu compilation bi ni mu demee lépp cat ba cet am na ay difficulté ba tey fu mu yegg si fu mu yegg léegi nag événement bi la ñuy jublu événement bi ku ñu ciy waxtaan nag possible la waa ju gën a réew ci Pape Galsen mi ngi nii ñu ngi koy bëgg bu baax a baax jox ko mu nuyoo Khadija ñu dugg ci biir waxtaan bi. non du maa ko wax. non ok képp ku ko wax tamit waxul dëgg <laughs> xanaa fa la réewan day am bon bref maa ngi ziar Khadija maa ngi lay bégee moom moo ñuy filmé nii jili maa ngi rafetlu invitation xanaa dañuy àggali rek fi nga tooloon ak isabtu ñu ñu àggali foofu noonu wax ci événement bi. foofu foofu la ñuy àggalee comme ni nga ko waxee léegi post ginnaa bu ñu jigee ci compilation bi te ngeen événement premier événement bi le 4 janvier la boobu ba léegi gars ñi ngi ko doon woo ñi ngi ko doon laajte euh, compilation bi ngi génn avril. ngeen teg événement bi janvier tuutee ko teewoon mu mat un an temps bu yàgg boobu ngeen toog ba tey defoo leen benn événement baay ba avril. waaw xam nga rek tamit lu jot yomb li xam nga génnee compilation déjà yombuloon dajale 39 rappeurs 13 beatmaker 2 DJ ak ñeneen gars yi ci impliqué wu yëpp donc loolu xam nga yombuloon di coup lu nekk day am temps quoi te promotion boo seetloo dafa am avant pendant et après te après bi mënoo ñëw rek nga génnee sa sa album. direct nga ne da ngay song sa concert gars yi duñu am temps wu consommer bagage bi et donc ñu ngi woon surtout si vente bi parce que dañu waxoon ne lépp lu ñu jaay si compilation bi dañ koy dugal si concert bi comme ça rappeurs yi am transport xam nga mooy loolu ñu frie quoi ñu am benn côté bu ñu xaw a wàccooweeg ñoom quoi donte du mat à cent pour cent moo tax ñu def suñu suñu promo dawal rajo yi di ko teg en boucle xam nga yenn émission yu bëri ñu ñu ñu ñu gérer ko léegi nag ñu ne le 4 janvier bi nii jot na déjà bëriwul sax. bon temps bi boo xoolee mais samedi 4 janvier pour man c' est le moment opportun ñi nga xam ne ñun ñooy tijji at bi en tant que mélomane tijji Douta Seck nga xam ne maison de la culture la quoi donc loolu rek moo moo moo wundu la fekk ñu toog nii benn temps bi pour gars yi gënoon approprié wu projet bi la gën ko déglu voilà gën ko enjoy et tout waa loolu la woon. waxu transfert la waxu transport laa dégg nga fi wax sànq ba léegi mais poste comme que artistes yi dañ bokkoon ci biir compilation bi ca fayoo leen dara euh, événement bi ñëw na la 4 presque 2 jours 3 jours moo ñu dese. da ngeen fay artistes yi nga xamante ni ñoo bokk si biir compilation bi kase wala ba tey yéen a ngi si transport bi. waaw déjà bon xam nga Sénégal li ñuy woowee cachet rek transport lay doon parce que tamit euh, gars yi nañu xam ni lu rab gaal seen bëgguñu duñu ay promoteur duñu ay producteur. mais gars yi nee nañ jot ngeen lu dul jeex. jotuñ nag duma ko wax mais gars yi nee nañ jot ngeen lu dul jeex. déjà lu dul jeex sax daa amul donc jot nañ. <laughs> jot ngeen jot ngeen kon. li ñu jot noonu incha allah moom la ñuy séddoo ak artistes maanaam du nekk ay cachet yu yu yu yu garaaw a garaaw mais loo xam ne transport lay doon te am na ñoo xam ne naa la wax benn affaire ay rapport yoo xam ne ñu si convile bi ñu leen dañ leen jox temps leen ko bon dañ leen di forcer nag pour jox leen ko incha allah mais bon loolu la quoi maanaam mbiru ñëpp ñëpp daal dañ si war maanaam joxe wu à fond quoi te rappeurs yi ak euh, ñu góor yu jigéen ñi nekk si compilation bi nag bon ñoom moom pare nañ ak ñoom quoi incha allah bu ñëwee dañ leen jox transport yu modeste rek loo xam ne daal fépp fu ñu mënti jugee loolu dinañ la fa mën a delloo quoi ñu xaw see reeraale sax. solo ñu koy defee Douta Seck la 4 janvier incha allah mais damay déglu esport bi ñu ne 18h ngeen di démarrer ngeen ibbi port bi vingt cinq personnes yi njëkk a ñëw euh, dañuy dugg gratuitement la ñuy duggee duñ fay dara mais pos loolu 18h ci concert Sénégal da ngeen bëgg gars yi teel a ñëw wala dëgg la li ngeen wax. dëgg la 18h00 day commencer. xam nga gars yi tàmm nañ naan non 18 heures heure sénégalais waaw heure sénégalais la mais nouveau type de sénégalais quoi donc 18 heures 00 dañuy commencé première partie bi dina bomb euh, moo tax sax ñu tijji porte bi entre 18 heures et 19 heures nga xamante ni 25 personnes yu njëkk a ñëw dañu leen may entrée bi gratuitement loolu yëpp dañu bëgg a nit ñi ñu teel a ñëw ñu respecte rendez-vous tamit xam nga respecter rendez-vous dafa baax 18 heures dañuy commencé te loolu dañ ci wax ak euh, rappeurs yi di wax ak public bi rappeurs yi nga xam ne programmé nañ leen déjà si première partie bi. jox leen heure 18 heures bi nañu fexe teel a ñëw parce que tamit ku tardé même bu dee 2 wala 3 minutes sax zappé nañ la parce que ñi pressé dañuy dañuy dañuy bëri xam nga ñi pressé dañuy bëri te mënuñ fi nekk di xaar diw non dama nekkoon sit fii dama newoon faa damay añ damay nangam non non xaaruñu dara 18 heures 00 day commencé public bi nañ ñëw képp koo xam da nga neen bon da ngay reer ba pare dem gunge show di bi affaire demee noonu da ngay ñëw fekk ñuy lema ah. <laughs> comme ni ko Isabte waxee sànq 22 heures day fekk gars yi di ranger barrière yi. loolu moom ay fàcc wax exact bi mais dama gis affiche yi chaque jour bu ma ñëwee rek damay gis plus de dix yu génn yoo xamante ni dix artistes lay nekk ma ni gars yi est ngi waxtaan ak ménagèru artistes yi wala da ngeen tëb tëb rek di génne yi man loolu moom ma njëkk def kaa. waaw mais ji léegi nan la ñuy dugalee artistes yu gars yoo xamante ne nag gars yi ndax waxuñoo ak ñoom ji looy dégg. affaire bi nu muy tawee quoi chaque jour di taw di taw di taw di taw chaque jour ba naan sax dama ne woon damay def benn publication wax ni gars yi xanaa hip hop bi ñëpp a war a si bi la 4 munoo leen satisfaire ñëpp ñi war a gérer nañ gérer ñu mënut gérer ñu xaar mais presque ñëpp ngeen ci boole. en fait loolu mooy effet lu durab gaa seen bëgguñu maanaam euh, te timing bi yëpp calculer nañ ko timing bi yëpp maanaam bu ñu prestation yi maanaam warul romb vingt vingt trois heures en fait prestation yi warul romb vingt trois heures tu vois donc te nag bëri na ay affiches yooyu gis artistes yooyu gis. nekkul ñoo xam dañuy ñëw ñu def prestation à part quoi ñëw def benn dix minutes de scène non non non loolu amu si artistes yu bëri yi ngay gis dañuy dugg ci conducteur compilation bi waaw loolu nag am na si ay surprise yu nganda ngand yu si gaa yi nar a am xam nga joxe exemple bu ndaw par exemple le son wane waane bi dañuy taalal instrumental bi quoi ci version live bi dañ fay dugal yeneen artistes ku mel ni Big Dadix day dugg foofu Prési Mike day dugg foofu xam nga Man ji day dugg foofu xam nga loolu yëpp maanaam euh, ñooñu ñëpp xam nga gis nga seen affiche te bu fekkee de ñu gis affiche yi ñu def temps de scène bu bari dañ mën na leen voilà jàpp ni day guddeeg yooyu mais du demee noonu ko incha allah. wane waane bi euh, ñoom foog si Fapando fu ñu dugg ñoom ci ban lañ dugg Bolt Flow man boobu laay xaar. <laughs> kan moo la mun nga ni ci wax quelques artistes parce que foog si bi moom dama ko force si gars yi boobu moom fël na. <laughs> non jii yow da nga dangereux quoi. <laughs> non waaw dèjà wane waane bi euh, ak dèjà wax naa la ko. Euh, Bolt Flow. bolt flow xam nga ñaar la parfois nag gars yi dañuy xaw réer sax ci sound boobu dañu ne bolt ne flow boo seetloo ci sound bi Usain Bolt moom mooy TNT ci sound bi le flow moom mooy jaabaloo boo seetloo bi mu ñëwee deful comme vitesse sax bi bi TNT di def ci sound mais lii lu jar a leeral la no mais tamit xam nga tamit am na ñu ko komp am na ñu ko kompul parfois damay dégg gars yi naan non jaabaloo dafa kii sound bi daf non non loolu moo ne woon idéologie bi gayen bu flow bi ñëw na jàppale ñëpp xam nañ ko quoi si jàpp flow bu nice bi. Mm. moo tax mu indi bagage boobu li nee yëpp sama mind wan la flow bu Sénégal affaire bi demee noonu loolu mooy idée bi. léegi ci sound boobu bu ñëwee si version live bi di nga fa am Fox de Safando mm-hmm. moom nee na képp kuy dawal moo la gën a gaaw <laughs> on verra di nga fa am tamit Modou Mick Jëf xam naa gars duñ ko xam. waaw Mick Jëf waaju garaaw ñu noonu. <laughs> waaw kooku moom dafa dafa yéeme. di nga fa am aussi Flexo. Mm. waaw donc loolu daal laa lay tënkal. mais lu tax dugaloo leen si rek si mënoon lu dugg foofu. waaw déjà xam nga ku nangoo ku ku bëgg bokk moom la ñuy boole see mbir. non est seeti ngeen ko. non seeti waatuñ ko nag pour wax la dëgg rek. ko mës ngeen ko seeti gi seeti waatuñ ko kon mësoon ngeen ko seeti. waaw pour wax la dëgg pour leeral tamit quoi déjà bi ñuy teg compilation bi à la base moom ak TNT eh, lañ njëkkoon boole pour ñu def sound Rex biñ ko seeti jee daf ñu ne bon. pour mu teg couple dañ koy jox cinquante mille francs te moment boobu bon il est dans son droit mais moment boobu amuñ loolu quoi amuñ ko ñu ne ko déjà munuñ munuñ ko te it comme que joxuñ benn rappeur xaalis pour mu teg couple yow duñ la ko defal quoi loolu moo taxoon bon concert bi nag comme que tamit noonu la fa taxawee woon ñu ne bon c'est pas grave puisque bokkuloon déjà si si bagage bi donc ñi nga xamante ni daal ils sont prêts pour joob ñun rek ñoom la ñuy joobal. et puis en plus du fa manqué quoi sérieusement rek si moom du fa manqué. ñu dugg si spectacle bi naka lay demee parce que chaque jour ko am événement lenn lay wax bu ngeen ñëwee di ngeen gis lu ngeen mës gis bu nu demee gis lan daan gis yéen lan ngeen di indi lu nu mës gis. déjà concert bu commencé 18h rek lu kenn mësul gis la loolu moo jiitu beneen bi demee ci prestation yi xam nga prestation yi déjà ñu ngi lancé benn challenge Facebook xam nga boo seetloo ci communication bi. dañ defoon melomaan bu ne ñu dédié la benn son quoi man diku ñu nopp yow ban lañ la jox incorruptible dafa mel ni ah voilà keneen Cheikh Sakk mbedd buur xam nga Daadamar pan africaine keneen arène et cetera léegi ñu ne ci gars yooyu kan moo si def meilleure prestation live quoi léegi ku nekk team bu ne ne sa bos mooy daax par exemple man dama ne waa diku ñu nopp ñooy def meilleure prestation live te loolu j'espère que ay ñoom mami Victor ak yooyu noonu dégg nañ ko et que buñ ñëwee gars dinañ ci dinañ ci gën a bàyyi xel donc dañuy fexe ba prestation yi nice te loolu artistes yi ñoom je pense que pare nañ pour loolu quoi mm-hmm. te ñu ngi leen di masaw coono dèjà si répétition yi am na ñu ma siy déggante ñu ne ma instant seen biir yi day daw tellement dañuy répété ma ne leen waaw hip hop gaal seen jar na ko donc daal promesse bi loolu la bu ñu ñëwee dinañ teel tàmbali sono yi dinañ si def suñu kéem ba son bi di joxe nice live bi cool mm-hmm. am fond de scène bu nice boo xam ne kenn mësu ko kenn mësu gis fenn aussi dinañ delloo njukkal euh, quelques gars yoo xamante ni jot nañoo teg compilation ci hip hop gaal seen mais aussi prestation live yi dinañ ko aj ci baar bu kawe nga xam ne at bi concert mooy nekk référence bi en niveau de live quoi. est-ce que am na gars yoo xam ni mën nañu xaar ngeen sargal leen ñu bokkut ak ñu def compilation. par exemple. Euh, comme ku ci mel ni obi médecin ku ci mel ni keneen ak keneen comme genre waaye di ku ci mel ni keneen ak keneen pour ngeen sargal leen. waa déjà obi médecin moom moo tax ñu def compilation bi. Mm-hmm. waaw parce que Isab mi ngi koy expliqué sànq idée wu teg compilation obi médecin jëmm jooju. jëmmi hip hop jolof kooku moo tax ñu def ko quoi. mais jour boobu war ngeen mën a génnee meilleur mélomane de l'année. waaw am na challenge boo xamante ni dañ koy lancer foofu noonu xam naa di ngeen ci gën a am ay info par exemple euh, déjà nañ jàpp ni daal mélomane bi ñëw bu la neexee nga indaale sa CD yi nga mës a jënd yëpp ak chouchou euh, ticket yi nga mës a jënd concert yëpp bu ñëwee ñu tegle ko xam nga ñu xool kan moo ëppale lim jënd bu ko defee ñu am lu ñu def ak moom daal euh, mbir mi mooy. ku nekk bu nga xam ne yaa ngi si hip hop Galsen bi nga koy jëmmal daal di ko di ko di ko doxal ñu bañ di la gis benn yoon par at par exemple xam nga parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fi am nañ tour et tout mais at ba at nga leen di gis si benn événement kese te ñun dañu yàgg dem fépp ci événement yi fépp foo dem boo fa gisul ISAB di nga fa gis Obi médecin di nga fa gis Cheikh Saka concert yi muy euh, achat tamit euh, euh, naka CD yi aussi quoi donc melomaan yi moom pour man ñoom ñu ngi fépp te bés bi dañuy ñëw gën ko jëmmal rek ñëpp teew artistes yi teel a commencé quoi. première partie bi ñen ñoo koy def mooy ñi ñu wàññi woon si compilation bi. waaw déjà ñoom la parce que à la base compil bi vol ñaari volume woon comme ni ko donc ñu bëri dañ leen wàññi te ñooñu dañ leen di may chance xam nga ñu ñëw presté quoi voilà ñooñu ñooy def première partie dina am première partie tamit ñeneen ñoo xam ne sax xam nga dinañ dugg si deuxième partie bi waaw mais première partie bi tamit day am niveau comme ni deuxième partie bi amee niveau tamit incha allah. gars yi nee nañ na mic bi baax na seno bi baax comme que live ngeen forcé gars yi. incha allah xam nga tamit euh, ñun cat dañoo topp waaye de incha allah moom dinañ am seno bu normal xam nga mic yu normal muy joxe lu set wicc dara du wàcc léppay tolloo quoi incha allah loolu moom. ku fa playback. playback amul. mais artiste mun na ñëw ba foofu def samilage wala playback. déjà régisseur bi ñu am. Euh, c' est quelqu'un boo xamante ni moom dafa rek quoi. te artistes yëpp wax nañ leen ni 100 pour cent live la képp ku fa jéem a forcer playback dañuy kët sa cent soit da wàcc wala ñu xam nañu def ak yow quoi en tout cas playback du fa am cent pour cent live la no du pas du 100 pour cent live mille pour cent live la. Xarisa lu ñu tërale woon ci waxtu mat na post looy tàggatoo ak lan nga waroon wax sa laaj ma la ko. bon laaj ak message bi ngay laase gars yi pour yu teel a ñëw surtout loolu. yow moom laaj kan nga fàtte woo dara déjà message bi mooy le 4 janvier à la maison la culture Douta Seck. melomaan power maanaam dañu war a wane puissance su déglukat yi quoi seen puissance ak naka la ñu sakkanee te loolu noonu mooy défi bi na ñëpp ñëw képp foo xam ne yaa ngi si Sénégal na la jaral nga dagg sa paas nga ñëw nga ñëw 18h00 entre 18h ba 19 vingt 25 personnes yuy njëkk a ñëw dañuy dugg gratuitement am na ñu ne quinze h la ñëw am ñu ne huit h dinañ leen fa fekk donc loolu yëpp pour man mi ngi mi ngi cool quoi donc na ñëpp teew le 4 janvier maison de la culture Douta Seck melomaan paawa ak lu dul rab gaal seen bëgguñu. am na solo ñu ngi koy bu baax a baax di bëggee waa lu dul seen bëgguñu la kat incha allah ñu ngi jox gars yi yëpp rendez-vous li ñuy ñaan gars yi mooy nan teel a ñëw ñu teel a démarrer suñu événement teel ko jeexal. parce que ñi nga xam ne ñoo leen doon teewal yéen artistes yi yéen moom message bi ñi nga xam ne ñoo leen doon teewal di jënd seeni i CD tey ñooñu ñoo xewle même bu ngeen presté wul ñëw leen ngeen soutenir gars yi jàpp si sa ku siy ñëw na nga daale sa xarit say ménagère ñëpp nañ ñëw parce que bés bi feet la erreur bi ñu def mooy li tax gars yi defuñu ko festival xëy na lu muy première édition bi la mais beneen yoon sama waaj def leen ko festival. incha allah parce que lii festival la war nekk. te xam naa boobaa Equivox TV dañuy bokk ci partenaires yi sax te bokk nañ si déjà xam nga. donc Equivox TV dinañ teew le 4 janvier. du euh, desek Meloman Power. jaajëf Khadija rendez-vous bu beneen yoon jaajëf sama gars yi Equivox TV la woon gaal seen sama game ak seen booy jili teer respect ci ñëpp.